kuréelub ñaari ràkka yi xam le ni tey jii toxal nañu màggalub ñaari ràkka yi comme nga ndar moom temps yi xam ni kaay yi dafa bëre fii Sénégal sax lay wax te masir yi fekkoon mën nañ ko jël kooku du ñàkk mën nañu ko taxawal mais mbooloo mi moom mbooloo mi kenn mënu leen téye ñoom ñëpp ñu leen respecté mesures yi fekkoon loolu mën na nekk moom ko amul problème mën nañ ko def waaye tamit dañuy topp tamit li nga xam ne moom daal moom la kër waa kër docteur wax lu ni mel communiqué bi président Serigne Ahmed Fall signé xam le ni ñoo ko am ci ndigalu xalif général des mourides waaye itam déggoo ci ak imaamu ñaari rakka yi ndogal bu ni mel ay doomi ndànk ñenn ñi nekk taalibe murid nangu ko gannaaw mbas mi fi mu toll ci réew mi lay feebar bi ngi law law goo xam ne maa day taal pour éviter nag muy gën a law di lor nit ñi aussi il faut que ñu jël décision yoo xam ne ñu ngi gërëm kuréel bi ci décision boo mu jël malgré que murid lañu metti na mais il fallait le faire te foog ñu def ko pour mën a moytu lawal feebar bi fi ci goxu Ndar. mën nañ ko magalé neneen daal ñu wacce caméra comme niñ ko digalé waaye ñu ñu daal bañ dajé comme niñ ñu doon ko gisé année bu bu nek nit ñi di dajalo di dajalo ndax coronavirus bi man daal yakarna décision bi ñu jël décision bu. bu am la. kuréel gi di sàkku ci jullit yi ak taalibe murit yi ñu jàng xasaayit ak wàcc kaamil ci lim bu ñu mën jagleel ko bisu juróomi fan ci weerub septembre bi ñu jëm ngir ñaan mbas mi jóge.